الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi tedd yi ñu ngi leen di nuyuwaat fi ñu leen baaxoo nuyoo di leen tatagal ci seen jataay bii di pencum saxaaba yi mooy minbaru saxaaba ngeen baaxoo ca ànd ak ñun fii ci TFM religion ñu ngi leen di ndokkeelati di leen nuyooti di leen tatagal seen jataay bii di pencum saxaaba yi mbokk yi xam ngeen nii ñu ngi àndoon ak yéen ci jàmbaar lislaam di kenn ci saxaaba yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu di faaruqul ummati Umar ibn Xattaab radiallahu anhu nekkoon nag di waxtaan ci Omar ci ay jaar-jaaram ci ak dundam ba egsi woon nag ci xam-xam-xam ni mu ñore woon Omar xam-xam ni ko Omar xame woon xam-xam Omar ni mu amoon ni mu ànd woon akuk dëggu akuk ràññee ci lañ nekkoon di ci wax xam nga mu fàttali ko jataay bay jàll ñi nekkoon di wax ci Omar ibn xalaat yi muy joxe ci wàllu lislaam alquran ñëw dëggal ni xalaat bi mu joxe bu jub la bu ñu war a def la def na ko ay yoon yoon ci lislaam kon muy wane xam-xamam waaye di wane na ak ràññeem di wane nag di wane nag ak dëggoom mbokk yi ñu ngi jële ci Amar ibn Xataabi ci boppam radiallahu anhu muy wax ni qaal lamma maata Abdullah ibni Ubay ibni Salulin duiya lahu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li yusalli alayhi falamma qaama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam وثبت إليه فقلت يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا وكذا كذا وكذا أعدد عليه xawlahu fatabassama rasulullahi sallallahu alayhi wa wa qaala axir anni yaa Umar mbokk yi jëlee nañ ci Umar anhu muy wax ni keroog bi yàlla dogalee Abdullah ibni Ubay ibni Salulin xam ngeen ni ku doy waar la woon ku doy waar la woon bokkoon ci nafeq yi nee na keroog bi mu faatu génn àddina dañu woo yonente bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu jullee ko yonente bi alayhi salaatu dox ay jéego jëm ci bëgg koo jullee nee na ma daw kar ko ni ko ah ndax da ngay jullee ibnu ubay bii ndax da koy jullee abdullahi ibnu ubay ndax da koy jullee te bi sàngam day nee na nangam ci yow nee na nangam ci yow nee na nangam ci lislaam Omar nee na ma lim yu ñaaw yi nga xamante ne bi ibnu salulin wax na ko ci yonent bi alayhi salaam wax ko ci diine lislaam ma fàttali ko yonent bi alayhi salaatu ngir bañ mu jullee ko nee na yonent bi alayhi salaatu salaam daal sori ma nee na ma Omar sori ma xiddi ma bàyyi ma ma jullee ko kon gis nga ne Omar Omar Xataab radiyallahu nag ku ñemewoon kilifaam la mbokk yi loolu am na solo kilifa yàllaa koy sàkk njiit yàllaa koy dogal mu jiite mbooloo waaye nag kilifa gi tam nag du yàlla comme yonente bi alayhi salaatu salaam lañuy fàttali di ko waxtaan ak moom kon fàttali sa kilifa fi muy teg tànkam fàttali ko li mu war a wax wala li mu war a def mbokk yi du ak ñàkki teggin du ak reewande waaye bëgg sa kilifa la ak fonk ko moo tax Umar ibn ñu bari dañuy jàpp ne dafa ñàkk teggin yonent bi alayhi salaam waaye déedéet dafa bëgg yonent bi alayhi salaam bëggul yonent bi salaam tànkam benn yoon ci ak ndëgg sërëx moo tax mu daan doxal mu daan doxal bi alayhi salaatu wasalaam akoy kar ne ko doo ko fi jullee yonent bi alayhi salaatu salaam daal di jékki-jékki daal di muuñ mu ne ko tedd googa ndeysaan ne ko Omar xiddi ma sori ma bàyyi ma def li ma bëgg a def gis nga kon loolu la yónni saa salaam doxalee digganteem keroog ak Omar ibn Xataab radiyallahu anhu keroog bi Ibn Salul daal di Abdullah ibn Abi Abi Ubay ibn Salul génnee àddina falamma aksartu alayhi Omar mooy wax falamma aksartu alayhi qaal inni xuyyirtu faxtartu law lam law law law aalamu anni zittu ala sabain yuxfar lahu la zittu alayha qaala fa salla alayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam thumma insarafa fa lam yamkus illa yasiran fa illa yasiran xatta nazalat al ayataani min baraa audu billahi min alshaitan arrajim wala tusalli ala ahadin wala tusalli ala ahadin minhum maata minhum maata wala taqum ala qabri gis nga loolu alxuraan di wax borom subhaanahu wa taala Amar bu Xataab ma sonnal yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci mu bañ a jullee waaju doy waar ji waaye nee na yom sax daan ma daan daan ma daan ma ah man dey dañ maa tànnloo Omar lay wax waaye ma nag maa tànn man maa tànn lii su fekkoon xam naa ni su ma ko ñaanalee lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon lu ko ëpp yàlla jegal ko dinaa ëpp dinaa ko ñaan lu ëpp juróom-ñaar fukki yoon gis nga kon keroog loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di wax moom xatab radiyallahu anhu yonent dem daal di jullee nag Abdallah ibn Ubay ibn Salul daal di koy jullee te fekkal moom naafeq la woon bokkoon ci kilifay naafeq yi mu daal di koy jullee bi yonent sallallahu jullee ba julli gi jeex ni suuti rek ñaari aaya ci sootul bara daal di wàcc ñëw nag di yedd yonente bi alayhi salaatu salaam di ko wax ne li def waru ko woon def dafa woon def rek li Umar Qataada bëggoon te mooy bañ a jullee bañ a jullee Abdullah ibn Ubay ibn te mooy alxuraan day wax ni bul jullee kenn ci ñoom yéefe yéefari nafeq yi ku génn àddina bul taxaw te mukk ci seen ko bàmmeel di la ñaanal kon gis nga ni kon la Omar doon junju bëggal ko yonente bi alayhi salaatu salaam alxuraan ñoo ne dëggal ni ko Omar li mu doon junj yonent bi loolu mooy ak jub la ñu war a def nga dégg ci ba tey lan xam-xamu Omar ak fonk kilifaam akuk ràññeelam akuk ràññeem qaala Omar radiyallahu anhu fa ajibtu baadu min jur'ati ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yowma idin aalam Omar nee na keroog nag mujj man jaaxle sama bopp ndax man daal ni ma ñimee yónnante bi alayhi salaam keroog daal mujj na ma jaaxal nag te yàlla ak yónnentam ñoo gën a xam lan mooy dëgg ñoo gën a xam lan moo jaadu ñoo gën a xam lan lu ab jullit war a def ak lu mu a bàyyi nee na yónnent salaam moo gën a xam borom subhaanahu wa taala moo gën a xam waaye yàlla ma dimbali Omar nag loolu bu joxee xalaat alquran ñëw dëggal xalaatam ànd xalaatam dëggal ni li mu wax ak njub la waras na ko def kooku lenn la ci xam-xam Omar radiyallahu radiyallahu anhu shayatinul insi wal jinn tafirru min omar radiallahu anhu omar nag ak dëggoom ak dëggoom aku bëggam lislaam ak bëgg yonente bi alayhi salaatu wasalaam bëgg mbooleem saxaaba yi ak dëggoom moo ko mayoon mbedd mu mu jaar shaytaane daw génn jaare meneen mbedd ngir lan ngir dëgg ko omar radiallahu anhu tey mbokk nañu xam ni inna al insana kullama sdaada xawfahu kullama sdaada xawfuhu min rabbihi azza wa jalla fa inna allaha yulgi haybatahu fi qulubi man xawla wa huwa faaraqul umma radiyallahu anhu yulqi allahu haybatahu fi qulubi shayatini fa fama in taraahu xatta tahraba xawfan minhu mbokk yi jullit bi doomu aadama saa bu ragalee boroomam dëgg dëgg ragal boroomam lépp a koy ragal yàlla mooy def ci xol yi jaam ñi ko wër ñépp ragal ko te duñ ko tey nit ki saa bu ragal yàlla dëgg dëgg ragal yàlla yàlla mooy def ci xoli jaam ñi ko wër ñépp maase ragal ko kenn du ko ñime kenn du kenn du ko ñime dañ koy ragal ngir lan yàlla mooy def seen xol ñu ragal ko duñ ko ñeme loolu yàlla moo koy defal jaam bi nga xam dafa ragal yàlla dëgg-dëgg nag ragal yàlla kon loolu dal na Omar radiyallahu anhu ba mu jón Omar ñépp a ko ragal nit daf koo ragal seytaan daf koo ragal képp ku dëng nag moom moo ci rawati ku dëng ñi moom Omar moom ku dëng du ko ñeme moo xam muy junne ji dëng moo xam muy nit ku dëng moo xam muy seytaan bu dëng kenn ci ñii du ñemar Omar radiyallahu ngir lan li mu ragal boromam dëggi-dëggi ragal boromam subhanahu wa taala kon kooku mu amal xatab radiallahu radiallahu anhu an saad ibn abi waqaasin radiallahu anhu qaal istaasana omar ala annabi sallallahu alayhi wa sallam wa indahu niswatun min qurayshin yukallimnahu wa yastaksirnahu aaliyatan aswaatuhunna ala sawtihi sallallahu alayhi wa sallam falama stadana omar qumna yabtadirna alxijaaba fa adana lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fa daxala omar radiallahu anhu wannabiyu sallallahu alayhi wa sallam yadxak fa qaala omar radiallahu anhu adxaka allahu sinnak bi abi wa ummi maa adhakak Omar nee na ñu ngi jële ci Saad bnu Abi Waqaasin radiyallahu anhu muy wax nii dafa am bis Omar bnu Xataab radiyallahu anhu ñëw ci kër yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee mu daal di fëgg fi yonent bi sansam daal di nekk mu daal di yëglu daal di bi alayhi salaatu am na ci waa Quraysh jigéen waa Quraysh ñoo xam ni. dañuy seet si yoon bi sallallahu alayhi wa sallam di waxtaan ak moom am lu ñu koy laaj seen am lu ñu koy laaj waaye boobu ñoom jigéen ñi muur wuñ seen kàddu yi ibnu saadi nee na abdullah sar bin abi nee na seeni kàddu moo gën a xumb kàddu yonent bi alayhi sa ca kaw la ñuy wax ñoom jigéen ñi xam nga jigéen dafa wax ñu baal ma ca kaw la ñuy wax jigéen ñi yonent bi di wax ndànk Omar nee na ma jóge sama kër ñëw nag fëgg fi yonent bi alayhi salaam nekk ngir seet si ko biñ déggee kàddu Omar mu ñëw ñoom jigéen ñi daal gaaw daal daw daal jël seeni seeni kol daal di muuru daal di muuru yonent bi alayhi salaam daal di jox ndig Omar daal di nekk bisimilah duggal Omar na ne ma dugg bi ma duggee rek yonent bi alayhi salaam tàmbalee muñ muñ mu jekk moom di ree ndeysaan nee Omar ne ma ne ko ah yàlla na nga yàgg ah yow mii yàlla yónni giñ naa ji sama eh, ndey giñ naa sama baay lan moo tax ngay ree lan moo waral sa ree ji ngay ree yonente bi alayhi salaam daal di may wax ni qaala ajibt min haulaai allaati kunna indi falamma samicna sawtaka ibtadarna alxijaaba yonente bi alayhi salaam daal di wax ne daal di wax ma ne ko ah man day damaa jaaxle man day damaa yéemu ndax jigéen ñii kat dañu nekkoon fi man waaye muuruwuñ muuruñu woon seeni seeni bopp muuruñu woon seeni bopp muuruwuñu woon biñ déggee na ngay wax ñu gaaw daw daal di muuru loolu moom moo ma reeloo moo tax may ree qaala omar radiallahu anhu fa anta ya rasulullahi la axaqu an yahibna tumma qaal tumma qaal ayu adawatin anfusuhunna ayu adawatin anfusuhunna atahibna nii wala tahibna nabiya sallallahu alayhi wa sallam xool na naam fa anta afaddu wa aglazu min annabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam eh ya ibna alxataab walladi nafsi bi yadihi maa laqiyaka shaytaanu saalikan fajjan illa salaka fajjan gayra fajjik mbokk yi loolu lu am solo loo xam ni lu doy waar la xadis boobu nag ku dem ci Sahih Bukhari andi na ko ci numéro 3683 moom mooy page xat bi mu nekk ci Sahih Bukhari radiyallahu radiyallahu anhu bu demee ca fadaailu ashaabi nabi sallallahu alayhi wa sallam boobu mooy xadis boo xam ni dafa wér yi yonente bi alayhi salaam nee na nag ma lool ci mbir jigéen ñi ndax nee na ñoom kat dañu nekkoon fi man toog am luñ may laaj waaye nag muur ñu woon seeni bopp biñ déggee sa kàddu yow Omar ibn Khattab nag ñu gaaw daw jël seeni kol daal di muuru muur seeni bopp loolu moo tax may ree loolu moo ma yóbbe sama ree yi Omar nee na man a jigéen ñi Omar nee na ah mani man mani jigéen ñi yow de yónnent bi alayhi salaatu salaam yow lañ gën a war a ragal sax ci ci ci man mu ne jigéen ñi waar mu ne jigéen yéen daal lan moo tax ngeen gën ma ragal ci yónnante bi alayhi salaatu wasalaam jigéen ñi jigéen daane ko waaw ñun dey yow lañ gën ragal ci Omar ci yónnante bi alayhi salaatu ndax yow Omar da nekk ku naqar deret doon ku tàng diine waaye na doon na ku doy waar moo tax ñun yow lañ gën a ragal sax ci yónnante bi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam nee na yónnante bi alayhi salaatu wasalaam daa ma ah Omar dey yow day Omar ibn Xattaab radiyallahu anhu giñ naa ci yàlla mi nga xam ne sama loxo sama bakkan mi ngi ci loxoom yéen sa sama wax mu ne giñ naa yàlla mi nga xam ne sama bakkan mi ngi ci loxoom maanaam sama dee ci loxoom la nekk sama génn àddina moom moo ko yore giñ naa ci moom ni amul benn seytaane buy daje ak yow ci mbedd lu dul bàyyi na mbedd mooma jaar meneen mbedd gis nga kon Omar dëggoom may na ko mbedd mu mu jaar. seytaane génn moo mbedd jaar mel mbedd ngir ragal Omar kon loolu nag dëgg moo ko may Omar Xataab radiyallahu anhu muy xadis boo xam ni ku dem ca Sahih Bukhari yi incha allahu da nga ko ca fekk mu nekk fa leer incha allah kon loolu gis nga day wane dëggu ko Omar radiyallahu anhu ba seytaane da koy daw nit ku juba jubadi daf koy daw ngir lan ak dëggu te mbokk yi dëgg lu am solo la dëggu bokk na ci jikko julli yi gën a foor ci lislaam la ci bokk nag dëggu ndax xam ngeen yonent bi alayhi salaatu salaam euh, keroog bi nga xamante ne bii Xadija radiyallahu anha lu jiiti muy nekk soxnaam xam nga ni Xadija dafa nekkoon commerçante koo xam ne yaxantu ci wàllu jënd ak jaay dégg nag ni yonent ndaw la loo xam ne dafa dëgg lool waaye ku wér cëng la koo xam ni dafa am kóolite lépp loo ko jox ci alal dana ko sàmm bam ñoŋ du ko yàq. du ko dugal fu neexul borom ku dëggal koo xam lépp lu mu la wax itam dëgg la yonente bi alayhi salaam kon ak dëggoom akuk maandoom akuk wóoram muy jikkoom yu rafet moo tax mu mujj nag doon borom kërëb xadija radiallahu anha muy suñu yaay xadija radiallahu anha kon dëgg gu yonente bi akuk maandu teem ak ak wóoram moo tax mu def ay pexe bañ may ku ko mu nekk borom këram ndax xam ngeen ne may sarata nekkoon jaamu Xadija radiyallahu anha lu jiitu yoon si sam ko denc dadaa dem yónni ay ay ay góor ñu dem Sham di def commerce ci alalam bu ñëwee seddoo seen bénéfice mu dégg yoon yonente bi alayhi salaam day nit la ku dëggu ku jub ku maandu ku wér cëng jikkom yooyu moo tax moom mu woo ko ñu ngi dama bëgg liggéey ak yow boole ak sama jaam bii di Maysara ngeen dem Sham su ngeen demee ngeen jënd marchandise jaayaat ba amee boo ñëwee ma jël sama capital ñu séddoo suñu bénéfice kon ak dëggoom ci la moom la ci la dëgg ak ak maandu teem ak ak wóoram ba tax mu woo ko liggéey kon gis nga ni jikkoy rafet mbokk yi mën na may nit jullit ci àddina lépp lu mu bëgg jikkoy rafet waaye ñaaw jikko itam nag mën na la xañ ci àddina lépp loo am kon jullit dëgg dëgg dëgg jikko la ak jullit dëgg dëgg ginnaaw gëm yàlla sa passeport bu wér jikko la moom moom moom lislaam kon gis ngeen kon Omar moom dëggu gii moom da ko war ci yonente bi alayhi salaam mooy dëggu ba mbedd mu mu jaar seytaane génne fa jaar mee mbedd ngir ragal Omar ngir lan ak ak dëggoom kon mbokk yi loolu da nga ci dégg ni jikko rafet daal ci dëgg-dëgg moom lislaam moom dafa bëgg loolu jullit bi mu làmboo mu yore ak jikko yu rafet yoo xam ne dañ mën a jëflante képp ku jub waaye nag am jikko yoo xam ne képp ku dëng wala mu jubate nag du la ñemee du ñemee jëflante yow ngir sa dëggu waaye ngir sa sa personnalité kon loolu lay sàmm di tàmm ci jullit bi mu koy dundee ci kaw suuf mbokk yi kon loolu lenn la rek ci dëgg ko Omar waaye lenn lay dem ci ak njubam lenn lay dem ci ak maandoom waaye lenn lay dem ci xam-xamam bu bari akuk ràññam bu mën a xàmmee lan moo am njariñ ak lan mu amul njariñ muy jëfe la am njariñ bàyyi nag la amul la amul njariñ mbokk yi am na benn ba boo xam ne day wax ni yonente bi alayhi salatu wasallam dafa waxoon ni inni la anduru ila shayatin al wal insi xad farru min omar radiyallahu radiyallahu anhu kooku Tirmidi moom moo ko génn xadis boobu jël ko sayyidatuna anha yonente bi alayhi salaatu salaam wax ni ah man de damay xool di gis seytaane jinne yi ak seytaane nit yi ñuy daw Omar duñ ñu ngoo toog ak moom lu ñu ngoo jaan bet mu jaar yonente bi alayhi salaatu salaam nag yàlla may na ko mu mën a gis luñ gisul ñun man a gis seytaane bu doomu aadama mën a gis seytaane bu jinne loolu loolu suñu borom moo ko may yonente bi alayhi salaatu wa mu daan wax ni man damay toog di gis seytaane yi nit doomu aadama yi ak seytaane yi jinne yi ñuy daw Omar duñ nangoo jaar mbedd mu Omar jaar duñ nangoo toog jataay bu Omar nekk ngir lan dëggu Omar radiyallahu radiyallahu anhu mbokk loolu am na solo ñu mën ko bàyyi xel ñu ngi jëlee ci imaam Nawawi radiyallahu anhu rahimahullah muy wax ni hada al mahmulun ala zahirihi anna shaytaana mata raa omar saalikan fajjan haraba haybatan min omar wa faaraqa dalika alfajja wa dahab min fajjin axar li shiddati xawfihi min basi omar an yafala fihi shay'an imam nawawi nee na xadis bi boo ci kaw gi la nga cey dégg rek mooy nga mooy ni xadis boobu li muy wax rek mooy omar day saabu seytaane daje ak moom ci am mbedd dakay kay ragal ba day daw génn mbedd mooma jaare beneen mbedd jaare beneen mbedd ndax lan ngir dëggug Omar waaye seytaane nag ragal gum ragal Omar jàpp Omar mën naa def dara ci kawam moo tax bu jaaree mbedd dajeeg Omar rek mu gaaw génn mbedd mooma jaaree jaare beneen mbedd kon gis na Omar Xataab mi ngi noonu ci ak dëggoom mi ngi noonu ci xam-xamam mi ngi noonu ci ak maandu teem mi ngi noonu ci bëgg yonente bi alayhi salaatu alayhi salaatu wasalaam ba tey mbokk yi ñuy jël sunu yaa Aïcha radiallahu anha muy wax ni qaala ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam bi bi xinziiratin qattu bi qatha lahu fa qultu li sawdata wa nabiyu wa nabi bayni wa baynaha kulli fa abat fa qult la taakul na la taakul na awalan aw la aw la latiqan na wajhaka fa abat fa wadaat yadi fi lqin fi lqinsiira mbokk yi xam naa xiste bi incha allahu ñëwaat bu ko yàlla dogalee dañuy ñëwaat ci xiste bi wax ko mu gën a leer ndax day mel ni fi ñu waajee yëkk suñu jotaay ñu ngi fi waaj ak si xam naa kon mbokk yi di wax rek ni tey li ñuy jàng ci suñu dars bi ñu joxe mooy rek ni xam-xam dafa am njëriñ ci doomu aadama moo xam muy ab jullit moo xam muy doomu aadama tout xam-xam dafa am solo ci képp kuy doomu adama rawatina nag jullit waaye tam dëggu dafa am solo ci ab jullit dëggu dafa am solo ci ab jullit ndax léegi ni yonent bi alayhi salaam ak dëggoom waaye ak ak manduteem wante ak ak njubam moo tax keroog bi yonent salaam demee Shaam ànd ak jaamu Xadija bii di Maysara Maysarata dem defi commerce ca saam xam ngeen ni yónni sax sax bi mu nekkee màkka lu jiitu ñu ko yónni ñëpp xam nañ dafa nekkoon dañ ko tuddoon amin amin moom mooy ko koo xam dafa wóor koo xam loo ko dénk du ci yàq dara da sàmm ba jox la ko nanga ko dénkoon du am benn lu ci manqué wala lu ci réer kooku mooy amin ngir ak jubam benn bis nag Khadija euh, dégg ñu ne ah yónni sax sax di Muhammad day ku koo xamante ne bi dafa maandu ku wóor la ko xam loo ko dénk daal du ci yàq dara muy nañ ko wal Muhammad mu waxtaan ak moom ñu liggéey ci wàllu commerce ñu sos mu daal ñëw boobu nekk lu yonent bi mu ñëwee mu ne ko man dama am xaalis boo xam ne mu bëgg jox la ko mu nekk sa capital nga ana sama jaam bii di may sarata nga dem fële ca Cham soo àggee comme xam nga Cham mu nekkoon marché mondial jamono jooju nga jën fa marchandise léegi jaay bu yàlla dogalee nga am bénéfice boo ñëwee ma jël sama capital ñu sédd suñu waa dem ànd ak may sarata bi ñu demee Cham yàlla dogal nag keroog yëfi dox lool yëfi dox lool. mu ñëw indi bénéfice bu bëree bëree bëri bëri waaye Maysarate nee na nag man li ma seetlu ci moom ci yoon bi gis naa ni ngóor si daal bu mu nekk lu yonte gis naa ndaw la loo xam ni ku ku ku dëggu la lépp lu wax rek dëgg doon du wax la du gis naa tam ku maandu la gis naa tam ku wóor la ko xamante ne bii du yàq dala jàmbur waaye ko netti Xadija Xadija ne ah man de dëgg yàlla comme uma borom kër bëgg naa ku baax ku mel ni kii daal di def ay pexe nag seen mbirum jigéen ba keroog ñu may ko yónnante bi alayhi salaam mu nekk borom kër ko gis ngeen kon dëggu li mën a may jaam bi dëgg dafa am solo ma tax Omar daf dëggum gii ma taxoon moom seytaane daa ko daw bu jaaree mbedd seytaane génn mbedd ma jaar benn mbedd ngir lan dëggu xama kon mbokk yi nañ bàyyi xel ni dëggu bokk na jikko yi gën foor ci lislaam te gis léegi dafa manqué lool ñu bari sama classe gi daanaka bu la waxee yàlla xam duñ duñ ko def loolu nag du jikkoy lislaam du lu kenn xam kon ñu gën a bàyyi xel ni daal bokk si jikko yi lislaam gën a fonk ci jikko yi moom mooy dëggu lépp la wax bu ñu càmbaree gis ni li nga wax mooy li am ñun nag moom Sénégal yàlla na yàlla yërëm waaye dañoo dañoo waar xam naa kon mbokk yi day mel nag maa ngi waaj agsi nag fi may yëkkat sama jataay insha allahu su ko defee kon ma tax wàcc sama kàddu fii rek di sant baax na mbokk yoo xam ne wax dëgg yàlla dañ may oo di wax ne ñu ngi bàyyi xel jataay bi ñu ngi koy ñu ngi ciy jariñu yàlla na yàlla def jataay mu jataay boo xam ne daal day doon jëriñ ci képp ku jullit waaye nag képp ku doomu aadama mu doon jataay njëriñ ci yow xam naa kon ñu ngi sant bu baax eh, xaali bi nga xamoon ne kan suñu caméra ñu ngi koy nuyu di ko tatagal waaye itam di nuyu képp koo xam ne daal mi ngi seetaan eh, jataay bi Minbaru Sahaba ñu ngi koy nuyu di ko jox wàcc waayam di nuyu itam nag suñu xarit Gagne Siri waaye itam di nuyu madame Guissé Mao Cissé di nuyu képp koo xam mi ngi ci da kër gi daal ñu ngi koy eh, jox cëram di ko nuyu di ko ñaanal jàmm yàlla na yàlla doon def at mi muy atum xéewal ñu julli ñëpp ci àddina bi doon atum jàmm ak salaam atum yokkute atum wér yaram atum juboo atum njub yàlla na ko yàlla def mën na ko yàlla na ko def ci barke xam naa kon mbokk yi ñu ngi leen sant bu baax ci bàyyi xel ngeen bàyyi xel jataay bi muy boru saxaaba duma ma tudd tudd di tudd ñuy bàyyi ñi ndax ko na may juum ndax dëgg yàlla mbokk yi ñu ba dañ may gis li ma woon ni ngi bàyyi xel jataay ñu ngi koy safoo kon ñu ngi ñaan suñu boom daal mu boole ñu dimbali sàmm nañu suñu pas-pas def ñu doon dëgg-dëgg jullit nag yoo xam ni dañuy jëfandikoo suñu jikkoy rafet xam naa kon mbokk yi maa ngi taxaw su fii di leen euh, sant baax di leen jox di daje incha allahu taala ah